bind waaye it wax ci ki nga xam mooy Gris Bordeaux mi nga xam ne actualité mooy fi mu ne nii nag moom dafa dugaloon ab bataaxal jébal ko waa CNG ne ndax dañ koy libéré comme que kii di Ama Baldé dafa am gaañu gaañu CNG nag nee na toog xaarandi nga xam ne nag mooy donc jëm ci wéeru yaram bu Ama Baldé donc fi ne daal dañ ñu ko munoo dem gum jël contrat xaaral ba ci kanam yéen kaay bi di record ne les lions dévorent les léopards suñu gaynde nag ñoom ñoo doon di Léopard yi ñetti bal ci dara tax ñu daal di qualifié xam ne nag mooy donc ci ñaareelu pàcc CHAN bi championnat d'Afrique ah donc ci euh, li xam mooy dëkk yi seen joueurs locaux yi nekk yéen kaay bi stade ñëw na Sénégal ans après donc gannaaw tamit li xam ne mooy noogoon amoon ca 2011 Sénégal daal dinay dellu si waat ci kanamu donc football bi waxaat aussi ci kam mooy doon Erling Braut Haaland mi xam ne nag moom actuellement euh, moom mi ngi wéy di ay euh, record mais tamit at ak le défenseur de Chelsea bi nga xam dañ xam nga xam donc actuellement moom it il est prêt à venir en équipe nationale du Sénégal parenthèse bi wax NBA ki nga xam ne LeBron James la légende LeBron James mu nag 224 points rek gars yi moo ko daal di dese pour mu daal di nekk le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA King James daal mi ngi si même dynamique bi mu nekkoon li nga xam nag moo jëm si classement CHAN bi gars yi ah, donc Sénégal mi donc moo nekk premier avec six points Côte d'Ivoire am quatre points Ouganda ak euh, xam mooy donc Côte d'Ivoire ñoo tollooy poñ donc RDC ñaari poñ mais xam ngeen ne kii di Côte d'Ivoire moo daal di raw euh, équipe bi di Ouganda euh, daa kii nag gars yi insolite bi mooy tey ki nga xam mooy Zlatan Ibrahimovic nee na man ak benn joueur kese laa gis ñun ñoo ñoo ñoo ñoo bëgg bal ñun ñooy technicien bal yi muy man la ak Ronaldinho ñun ñun topp ñu bal bi rek di daw ñu dañoo bëgg technique bal bee ñu bëgg bi loolu daal la Zlatan daal di fësal ki nga xam donc Dani Alves ki nga xam ne nag mooy soxna si ne da ko doon jéem a nag nee na soxlawul xaalis soxlawul ndàmpaay soxlawul daal li mu soxla daal mooy yoon def liggéeyam ba ki nga Dani Alves euh, daan biñ ko war a daan donc ñu daal donc le défenseur brésilien Dani Alves ancien joueur du FC Barcelone kii nag di Eric Bailly Eric Bailly moom gannaaw nga xam nag dañ ko daal woon euh, suspendre lu toll ak juróom-ñaari match waa Marseille bàyyi ko mu mën nag de temps en temps moom demoon seetaani matchu Barcelone bi mi ngi nga xam euh, Newcastle battre na benn record ah 15 sans défaite pour Newcastle record euh, dans l'histoire de la Premier League donc Newcastle gars yi ñu ngi si nànk-nànk ci li nga xam ne nag mooy donc au devant de la scène ñoom ñi bu ñaari at ci ginnaaw gars yi ñett ñi ngeen di gis di donc kii di euh, donc Erling Braut Haaland Kylian Mbappé ak Jude Bellingham ñooy joueurs yi nga xam ne ñoom vingt ans lañu am tegale ñetti match ñeenti match Ligue des Champions di dugal ay but ñoom rek ñoo ko fi defagum ñett ñi ngeen gis donc di Bellingham Haaland ak Mbappé ya Erling Braut Haaland bi nga xam ne nag gars yi moom fi mu ne nii record bi mu war a battre meilleur buteur NBA euh, plutôt Premier League 34 buts la Alan Shearer ah ak ki nga xam ne mooy Andy Cole ñoom ñoo ko détenir 34 buts la ñu dugaloon donc moom record boobu la fas yéene waat jéem a battre jamono ji Harry Kane également nekk na joueur bi nga xam ne gars ah, derby londonien yëpp yi am moom moo ci ëpp lu mu ci dugal mu 17 buts la dugal ci derby londonien yi xam participé na amul benn attaquant bu nekk ca Premier bu mu def lu ni ki nga xam ne donc Harry Kane Declan Rice Declan Rice nag actuellement ñu koy déclaré ne fi ne nii donc ñii di waa Arsenal daal ñoo gën a jege pour daal di jënd bi nga xam ne nag a ngi ko bëgg ah Declan Rice gars a gis boppam adaptéwul bëri day ñëw daal dem jouer euh, ki nga xam ne aussi mooy donc kii di Hakim Ziyech nee actuellement Chelsea ñu ngi jéem waxtaan moom xool fexe na la fexe ba daal koy euh, jaay nu mu gën a gaawee soit ñu jaay ko club nekk Angleterre wala ci yeneen gox yi mais ngi xool daal offre bu gën baax ak aussi faisabilité mbir yi fu toll ki nga xam ne aussi gars yi mooy kii di Frank Lampard Frank Lampard nag gars moom actuellement objectif am moom xam ngeen ko moom fi mu ne benn tànk banque ci benn tànk banque ci mais moom li wax daal dirigeant yi ak Everton li ñu bëgg recruter ki nga xam ne mooy pare nañ nag ñoom pour teg table bi lu tolloog fukki millions ak juróom 15 millions la ñu bëgg table waaye tamit li nga xam ne nag mooy donc waa Sheffield United ñoom li ñu bëgg mooy que ne même